grand champion maa ngi lay bëggee di la ziyaare di la sa wàccukaay tey nga indi sa doomu ndey Mbagnick Kaïré loo koy wax. waaw ginnaaw bu ñu sant yàlla junni ci yonent bi rek sant suñu ñaari waajur euh, presque moom du ñu am lu bëri lu ñu koy wax parce que li ko warloog ñun moom def na ko muy lépp loo xamante ne parce que coono yu bëri la dat ci kombaa bi instant bi ñun li ñuy xaar yàlla rek la ñuy xaar di ñaan tamit ñi nga xamante ne ñoo yor ñu ñaanal ñu daal. ci combat bi parce que teg nañ ci suñu bakkan di ñaan yàlla arbitre sifflé may ñu ci jël bu set huit billaay wallaay. waaw ci xeex lay jeexee wala ci bëre. waaw comme bëre dóor la ñuy wax lépp la ñuy préparé ñun préparé nañu bëre préparer nañu dóor incha allahu rabi. jaajëf champion tey nga indi sa rak muy Mbagnick mm. loo koy wax. waa li nga daan indi rek mooy góorgóorlul xam nga. waaw xam ne la war a xam ñu topp sa ginnaaw xam coono bi nga daj respecté sa adversaire. waaw li si des nag ñu bàyyi ko ci loxo yàlla. waaw parce que keroog dama demoon entraînement am dem seeti ko. mu kut koo kut dafa bëgg a jeexal combat bi ci cinq minutes looy wax. waaw dëgg la moom sa yéene ngay wax rek mën na jeex sax avant cinq minutes yi mën na jeex après cinq minutes yi waaw l' daal respecter adversaire bar bi nga gis ne dama war a dem nga dem boo gisee dama war a xaar nga xaar. waaw sa combat diggante ak Zarko dégg naa taxaw na. waaw taxaw na taxaw na bu yàgg. mais jàppaguñu dat. non jàppaguñu dat nag. parce que yaakaar nga waaw bu neexee yàlla waaw yaakaar nañ incha allah xam naa début saison bi rek yàlla waaw defee daal ñun ñu ngi koy xaar incha allah. waaw jaajëf champion merci. eh jaaf père waay dégg naa sa combat ñu nag bàyyi ma ñu taxaw. na waaw. maa la ko doon laaj nga ne dégg goo dara. waaw waaw yàlla ni def ni taxaw na. dëgg la waaw yàlla ni taxaw na xam nga di ñaanal xam nga waa Medina yëpp nañ jug jàppale ñu. waaw ñu am ndam bu sedd guy waaw. mais kon tey sa doomu ndey looy wax. non sama Mbagnick pare naa moom. waaw sa mission bi jox nañ ko lépp yàlla na ko yàlla defal jàmm ndox bu sedd guy ñu am ndam bu sedd guy incha allah. mais yaakaar nga si bëre wala si xeex lay jeex. si bëre lu mu ànd booy bi pare na. waaw mais yaakaar nga yéen a yéen a saa waay bàyyi ma njot bi est ce que dina ko tëgg si 2023 bi wala. waaw incha allah saison ren ji ko bëgg a def incha allah di nuyu bi. di ko ñaanal yàlla na ko defal jaamu bu baax incha allah. waaw Jamaïcain Jamaïcain Jamaïcain waaw jaajëf champion ndax champion di leen jox seen wàccuwaay. di wax dara gis na ñëw ngeen si làmb ji. daam loo ma bëgg laaj. waaw loo ma bëgg laaj. waaw li ma la bëgg a moom mooy. te mhm. doom mi mañi kay waaw wax dëgg yàlla tey noo lañ ñëwee. waaw li ñu ñëwee rek mooy préparation bu sérieux rek. xam nga boo nekkee sa njaboot yor équipe bi euh, sport amul caaxaan il faut travailler man si loolu laa leen tàggat loolu laa leen gëm loolu la ñuy def moo tax ku ci ñëw rek soo dongalee amateur ñu xam ne ñii entraîné nañu loolu mooy loolu rek laa leen digg te ñoom ñëpp ñu ngi si. mais ngeen jël benn adversaire boo xam ni dafa nëbb xeexam te moom nee na si bëre daal lay jeexalee combat bi. waaw xam nga làmb moom daa mel ne ku yor oto dawal dawal rek léegi saa yi mu signalé la waaye en tous les cas ah ñun daal préparé lañu bu dee bëre dana doyal bu dee xeex dana doyal parce que bëre dóor la. waaw moom nee na moom dina ko bëreloo dina ko xeexloo te dina ko daan. waaw waaw daan moom fa yàlla yàlla moo yor daan waaye ñun daal ku gis sunu ku gis sunu athlète xam na pare nañu li des nag yàggatul ñu xool fan la wàllante di mu jéggi ak bëtam incha allah. jaajëf champion merci. Papa Laye boo leen féetee seen càmmoñ booy Malika arbitre toogal. Boy Malika Papa Laye ma ngay dox ci kaw attention sànni na ko gauche ande dalu ko Papa Laye Boy Malika ñoom ñaar ña ngay direeku ñoom ñaar Papa Laye Malika ña ngay leeltoo Boy Malika mi ngi attention jël na ko songu na ko Malika jël ko daal di koy freiné mu koy takk ca kaw attention attention Papa Laye Boy Malika Boy Malika am na ngemb Papa Laye ma ngay benn tànk baa ngi ca biti saako ya moom papalaay papalaay booy Malika papalaay sànni ko oh dara amul dara amul dara amul déggal loolu supporter yi déggal loolu supporter yi arbitre bàyyi leen ñu bëre waay ah jarul avertissement waay lii bëre la waay aja benn avertissement pour booy Malika aca grand waaw Pape Laye Boy Malika day sànn arbitre bi sifflé waat na diggante Pape Laye ak Boy Malika diggante Pape Laye ak Boy Malika day sànn day sànn Pape Laye sànni na benn kurpañ eh, jël na ko Pape na ko tëj na dëj na ko daanagul daanugul day sànn bapalaay booy malika ñi ngi day sànn laa ilaha illallah bapalaay à gauche ngemboo ngemb bu xonk bi booy malika à droite day sànn bapalaay booy malika bapalaay booy malika day sànn samedi avril 2023 ñu fii si arène nationale Sam Production le promoteur de la jeunesse ndeysaan taxaw fi combat bu mag diggante Mbagnick Kaïré ak Mathieu Pereira ndeysaan que le meilleur gagne Papa Laye Malika Papa Laye moo ngemboo ngemb bu xonk bi Boy Malika ngemboo ngemb bu Lagos bi am lu xonk li ndeysaan Papa Laye Boy Malika ndeysaan Papa Laye ngay dóor pour mu sigi Papa Laye Malika Papa Laye Boy Malika ndeysaan ñoom ñaar jàppante nañ mais dafa ndurox Papa moom fu mu jàpp moo gën a baax ndeysaan ndeysaan Papa Laay booy Malika saako yu fekkwul kenn day diggante Papa Laay booy Malika ñoom ñaar jàpp nañ ndeysaan laa ilaaha illallah def na action mu bañ def na action mu bañ laa ilaaha illallah booy Malika wër na ko ndomb yenn ko bi kaw dóor ko kaw dóor ko ci suuf day sànn Boy Malika daan na Pape jël a amul benn werante waaw waaw doole doxul jàmm Macha ah. waaw préparé nan ko am nañ ci moom yaakaar te suñu borom rek moo des ñu ngi koy ñaanal yàlla may ko te bu duggee si biir day xam ne kii préparé wu na waaw préparé wu na. waaw moom nee na. waaw boo leen bëree mu daal leen boo leen xeexee mu dumale. ku xam Mathia xam ne ndaanaan la Mathia bëre rek lay wane waneegul xeex mais tey tey da ngay gis lu Mathia mën a yàlla yàlla baax na ah, ay minutes moo ci des suñu borom dee ñu may ndam incha allahu rabi incha allahu rabi yàlla dee ñu may ndam waaw ñu koy ñaanal yàlla defal ko ndam lu sedd guy tey ndax loo loo rek loo kesee ko jik ndam rekk ko jik yàlla yàlla na ko suñu borom defal ndam jantal mel na borom xol bu naase yàlla na ko suñu borom defal ndam. mais amul am naa combat le 15 juillet. ndeysaan nee na yéen ak kat. Siteu bu Ngor. ndeysaan Siteu bu Ngor. waaw kat moo ko taxawal. ma loolu rek. waaw waaw jaajëf champion. waaw waaw maa ngi lay ziare. waaw. di di nuyu Aliou Seye numéro 2. dëgg Khalifa Ngiraan. waaw waaw waaw door na fi Papa Sow seex la waaw. Seex ak Papa Sow ñoo bëree dañuy jaawale man Moustapha Gueye numéro 2 laa fi bëre loon ak yeneen combat yàlla def ma dem ci àll bi ñëw ñëwaat ànd xale di leen gunge man mën ñoo bëre ndax ñun ak ñee Gris Bordeaux ñoo démarré ndoo nekk Espagne jël fa ay trophée ànd ak Moussa Seye champion bu mag ak Iba Ndaw ay champion laa fa nekkal ak ay ñoom Matar Ndiaye Boubacar Yaye Jambe Baba Maal ñoo fa bokk nekk kii nag di bëre suñu doom la suñu rakk la mi nga gis nii yaayam ak sam ñoo bokk benn papa Boy Niang ñaar deux kon ñun waaw ñaar bi yaayam ak sam ñoo bokk benn papa tey daal ñu ngi ñaanal euh, Mathia yàlla yàlla may ko ndam di ñaanal yàlla seen site bi yàlla jëmee ko ci kanam làmb dafa neex xale yi daal li ma leen encouragé mooy nañu bëree def fulaak fayda entraîné bañ ko boole caaxaan di ñaan yàlla yàlla may ñu ndam di ñaan yàlla Sénégal nekk ci jàmm may ko président bi may ko ñëpp daal di nuyu waa Europe yëpp dëkk ba ma nekkoon ma nekk fa ak sama rakk Fatou Ngiraan Suède fa laa mujj def naa fa 4 ans ñoom Soda Ndiaye Ndeela Sarr Cheikh Diouf waa daayira Trevisio Papa Tafa Ngiraan ñooñu ñëpp ñu ngi leen di nuyu di nuyu suñu waa groupe bi Zarko sax mi ci bi Zarko di ñaanal di ko ñaanal ndam di ñaanal gars yëpp di ñaan yàlla yàlla def jàmm làmb dafa neex mais jàmbaar a koy def booy bi nag yàlla yàlla may ko ndam booy bi mën a bëre la muy macca ci bàkk Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di kontaan trop jaajëf champion ngay wax mu tee xam ndam bi dem géewaay soxal na ko ko waa am na fu mu ko yóbbu si làmb di nga ñaanal ndam bu baax géewaay yëpp a si ginnaawam mboo tee drapeau bi ah. yaakaar nga ci xeex lay jeexee wala waaw mën na jeexee si lépp parce que wàññi na si côté bépp waaw wàññi na si côté bépp waa ji seet si naa de nee na dina la teg lu métti Boury Sine loolu waxu mbër la rek mais ku ñu xam-xam ne xale waaw dañuy entraîné dañuy waaj loolu waxu mbër rek waaw gis naa ni nga bëree yéen ak arme bu ngéwal waaw loolu waaw merci lu raw li nga koy teg lu raw lu raw lii lay bëri lu gën a pire lii waaw parce que champion la waaw jaajëf allah bu doxee tam lamb doxee rek ñoom la barke alxuraan waaw bëggee naa leen di leen ziar de jaajëf jaajëf champion eh Fatick Kayre eh champion ñi nag ñooy tëggal Mbagnick Kayre tey loo la ñëwee waaw tey nu ñu ñëwee ànd ak suñu frère rek Mbagnick bokk ak moom Medina nga xam ne maa ngi moom depuis xale ba tey tey ñu gunge ko pour mu am ndam si kàttanu suñu borom waaw noonu lañ ko indee tey. tey noonu ñu ngi koy indee. waaw tey répétition bi keroog jaar na yoon dañ ñoroon. loolu xam nga ñun dañuy doomu géwël Ablaye Mbuub di sunu maam sunu maam dem fu nekk muy Majaxate Mbuub dem fu ne te aar moo ko yóbbu si ay sabar la amee lépp lu mu am ñun ñu ay doomu géwël ñun nàmp ko nag kon bu nu tëggee danoo war a tëgg ñun waa Kër Laay Mbuub danoo bokk si làmb kenn mënuñu se génnee ndax dafay def si Sénégal loo xamante ni kenn mënu ko din Magic nag ndam rek lañ koy ñaanal ci kàttanu sunu borom. waaw doo ma dimbali si tuuti galañ. eh dimbali leen ma si tuuti galañ. waaw waaw ñi ñoom ñooy tëggal Manick Kaïré yooyu ñoom la waaw tey sa doomu ndey muy Sam dëgg fi combat espoir bu mag diggante Mbagnick Kaïré ak Mathieu Pereira waaw ñu ngi sant yàlla jàll na ci jàmm dugg ci bisimilah génn alhamdulilah rabbil mbëri ñoom amuñu problème quoi mais nag ñi àndal la plupart ñooñu ñooñu ñoo teg problème quoi xam ku nekk da ngay bëgg a woon sa morom ne man nii laa meloon nag mel fii nag yàlla dañuy dimbali ne am na ñu leen dompee quoi ba nga xam ne lépp na jaal ci yoon quoi incha allah mais dégg naa seen règlement dina changé xam ne ay ay ay ay gàllaaj daanul waaw non euh, sa à dire su fekkoon que euh, ndem si yàlla si waxoon na ko Balla Gaye newoon na su fekkoon euh, sëriñ mooy daan bëre rek kon kon mbëtu retraité des fois nag foo ngay bàyyi lépp ci loxo yàlla quoi que sëñ bi tamit da wax rek mais yàlla ki war a daan ak ki war a daan yàlla def na ko bu yàgg quoi yàlla yàlla dool so dool ñu xéewal mais dama dégg ni ñu ne léegi képp kuy def gàllaaj sa kër nga koy defee fii waratoo fi indi dara non ci digg géew bi doo indi gaay mais sa cumbukaay mën ngaa def li def lépp ah, ne gis ay mbër boo xam ne ñu may ko cinq mille mu def deux heures temps trois heures temps ci mystique xam nga loolu tamit neexul neexul mais léegi nag sa cumbukaay ngay defee lépp léegi ñaari butéel ngay indi rek daal di ñetti butéel lañ nga dugal ci biir géew bi mais sa cumbukaay nga koy parce que tamit euh, su fekkoon gal parce que tamit encore nga yore ay mille bouteilles yoo xam ne xamoo xamoo xamoo xamoo ban ban sëriñ moo lay daal xamoo ko vraiment xamoo ko mais lépp nañ dellu ci yàlla rek ci barke sëñ Babacar si jaajëf. yàlla dafa def ni léegi mbër bu ñu daan nga jël ay siège sat léegi ñu di ko ñu di ko jël toor bi yëpp teg leen ko waa seen waaw ah, léegi léegi nag am na am na mesure yu ñu jël sanctionné rek bu say mbër mi mbër mi ay supporteram yàq yi moom mooy defaat siège incha allah mbër ah, mbër mi mbër mi ko yàq Euh, say supporters yàq ko yow yaa koy ah, sa bopp. waaw yaa koy defaral sa bopp. waaw jaajëf champion. waaw kii moom mooy Ousou Paye. waaw waaw bu làmb doxee. moom la bu làmb ñàkkoo si moom la. dëgg la dëgg tey nga indi sa doomu ndey Manick. waaw Manick sama doom la sama doom la Manick nekk espoir boo xam ne foo ko natt weesu na ko xale bu gëm entraînement xale bu am taxawaay mbër. te du caaxaanee bëre tey la ko gars yi di xam tey loolu lii tey tey tey gars yi xam loolu. waaw sa doomu ndey mooma Zarko loo ñuy wax tuuti rek. non sama doom. waaw sa doom sa doom sa doom. sama doomu ndey day rëy jéen sama doom la sama turandoo la sama doom la. waa yàlla dina ko defal ndam parce que Zarko moom loolu jaaxalul jéen del xool jéen dina ko ëpp dina ko ëpp doole te dina ko daan. mais dama gis ne 100 pour 100 ne Zarko moom la ñu jox favori. ah 100 pour 100 bi Zarko la ñu jox favori. waaw Zarko Zarko. waaw yàlla baax ba booba ni nga ne ma pay waxoon nga ko waaw. yaakaar non bu gaaw jën foo ko natt weesu na ko jën Sénégal xamaguñ ko de xaaral ba combat boobu la ko Sénégal de xam. mais dama gis ne avant combat boobu ku ñu ci jox avant tam nga bañ ay Moussa Ndoye Yékini Junior ama neex lan mooy li ma lay wax booy bi qualité yi mu yor gars yoruñu ko capacité yi mu yor gars yi yoruñu ko ga booy bi li muy def gars yi duñ ko dem booy dafa ñeme entraînement te dafa gëm boppam te dafa gëm ne da lay daan. lay bëggee di lay ziar jaa ngi noonu ci digg géew gi ñaari xale yi jaay nañ combat bi c'est DJ The Game from Ziguinchor Radio Génération FM 93 ndeysaan Kampal Albert nee na Jésus-Christ Vierge Marie Ka marsa yi da ngeen xam dara ndeysaan El Hadj nga xam ne Médina TV mooy lamb Médina TV mooy àdduna mooy Ndakaaru nga xam ne ñun eh, ñooy PG <laughs> ndeysaan arbitre bi mu waaj a soufflé grand combat bi diggante sa Mbagnick Kaïré ak Mbathie Pereira ndeysaan samedi 29 avril 2000 victoire ah arbitre bi soufflé na arbitre bi soufflé na combat bi diggante Mbagnick ak Mbathie Pereira ndeysaan Mbagnick Mbagnick Mbagnick à gauche Mbathie à droite ñoom ñaar ñu ngi lewtoo diggante Mbagnick Kaïré ak Mbathie Pereira Mbagnick sànni na diggante Mbagnick Kaïré ndàcc Pereira diggante Mbagnick ak Pereira diggante Mbagnick ah arbitre attewaat na combat bi arbitre bi sifflé waat na combat bi diggante Mbagnick ak Lathia Pereira diggante Mbagnick ak Pereira ah ñoom doon na gauche droite Pereira jël na ko ñoom ñaar di ngay xeex xeexu mbedd ndeysaan ah jël na ko Manick jël na ko Pereira bañ na Manick jël na ko Pereira bañ na ñoom ñaar jàppante nañ ñoom ñaar jàppante nañ diggante Manick ak Pereira Manick mi ngi dóor dóoru kaw ndeysaan diggante Manick ak Pereira Manick mi ngay dóor dóoru kaw pour mu sikki ndeysaan ñoom ñaar ku nekk am na benn ngemb ñoom ñaar ñëpp jàpp nañ diggantam Manick ak Pereira ah arbitre bi àtte na waat na combat bi ndeysaan arbitre bi àtte waat na combat bi diggantam Manick Kairé ak Mbathie Pereira ndeysaan Kairé ak bi suuf la waat na combat bi ndeysaan naan lay Diagne maa ngi lay bëggee di la ziar ñoom Pa Diagne ndeysaan Diba am nañ benn affaire bu ñu ubbi rien angle 16 laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah ay bii combat Pereira jël ko Mbagnick bañ na ndeysaan Pereira jël na Mbagnick bañ na ndeysaan tey bii combat ñoom ñaar jàppante nañ gën diggante Manick Kayra ak Mbathie Pereira de e arbitre bi jox na avertissement Manick jox Pereira avertissement ku nekk am na ñaari avertissement te avertissement am na ñaari ak Mbathie Pereira rek ma leen wax bëre leen yéen nag la ñuy xaar. Eh, laa ilaaha illallah yéexee laa ilaaha illallah. Oh. eh Pereira daan na ko. Pereira daan na Mbagnick jël bi amul benn werante. laa ilaaha illallah. Mathieu Pereira daan na Mbagnick Kaïré jël bi amul benn werante. ndeysaan bésu kan la woon bésu Sam production ndeysaan comme. Eh, eh. da kaa ndeysaan waxoon naa la ko nee naa la bu jàppoon tànk bi encore bu ko jàppaatee rek laa mujj jeex xoolal da ko jàppaat rek laa mujj jeex ndeysaan ma ñu kay woon ak maj Pereira maj Pereira dan ko jël bu amul benn werante dam li mujjee na dem géejawaay ndeysaan tam dem Medina géejawaay la mujjee dem tam nga ko mujjee woon wax noonu la demee ndeysaan ndeysaan mbokk senegal mbokk amateur yi samedi 29 avril 2023 ñi goon fii si arène nationale bésu kan la woon ba si saam mu taxaw fi ñaari combat espoir yu mag ndeysaan diggante Manick Kairé ak Mathieu Pereira mais finalement Mathieu Pereira moom moo ko mujjee daan jël ba amul werante maa ngi leen a wax fii ci kanam nii ndam di géejewaay la jëm wala Medina ndam di mujjee ne dem géejewaay kon ku leen fi nekk loon moom mooy Diba ndeysaan ànd ak góor gi le grand monteur maa ngi nuyu équipe bi yëpp du sant ñëpp wasalaam mawɗo jiinilam haa bine rafina so feydu bina